Tuba Wujande hee Ibou Ndiol Valdo dellu na si Kambay hee hee waaw waaw Kalmu Ndour a ngi noonu de bokk ci lamb de lay le waaw waaw mooy sotteekoo suba ba Kalmundur la de tey le 19 février ak Asantine borom Ngoundiane mise au 10 7 bœuf Kalmundur a suba wu jande lundi passé moo jël somon fils de Birama yi e ana Jackson yai, ana Ba Momar Sarr Séré Aïssatou Baye Daba Sarr ak Binta Sarr la ilaha illallah Kalmundur a eh. tey ab téere la yor de oh fooy bu ñu xaatim tàllal gauche droite waaw waaw mu ngi koy xooj waaw waaw tàllal na ko gauche ndox la ciy laaj eh, eh dem na ci ndox de daga say jambu sottee ko ko wala mu ngi koy jambu ndeysaan moom Calm eh, eh.

jëmm jëm macha allah mborum Jackson Ndiaye ba Moussa Thiaré Pa Momar Sarr fils de Biro borom Marfa Foko eh, eh waaw waaw grand Mbagnick de waaw waaw waaw waaw hey grand Mbagnick eh calme eh. nous rasi Babou